ay ca murit Touba ca kanam weer wi dee na Serigne liggéeyal ko warteef la ci ñëpp. joxe ñaari téeméeri dërëm ci Touba ca kanam weer wu ne nag boole na jëf yu baax yëpp. Ah, asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu ñoo ngi amati mbégte bu baax di teewaat ci béréb bi eh, Touba ca kanam faggoon ci ndegalu Sëriñ Abibu ak taxawaayu Sëriñ Mahamadul Muntaqa eh, ñu koy tuddee Kër Wàllu. Euh, ngir waajal ko ñi nga xam ne yàlla dafa def ndox mi li ñuy tuddee carisé tabian ye bi fi jaaroon léegi fan yi muy euh, catastrophe catastrophe lañ ko mën a tuddee naturel boo xam ne wax dëgg yàlla fépp li am ci àdduna bi ci day bette fekk nag yàlla dogal na ne suñu kilifa gi moom suñu borom joxoon na ko xolub xelum am bu xaw a sori bam bam bam bam taxawaloon béréb bi di ci di ci profité di santaale bu baax mbokk yi nga xam ne jàppale woon nañ ko ci li tax liggéey bi yamb mooy ñu ko jox suuf seek yooyu su commission bi ko yoroon it ci Touba ci kanam it Cheikh Abdou mii bokk ci ñim nekkoon ci lo seen loxo eh, yàlla def bi ñu demee ba taxawal fii eh, Touba ci kanam comme ni muy doxee rek ni ngeen ko benn koor la bu am ay cër yu bari day def lu mu def ba àgg ca cër sàngam li mu war a sottal rek mu jokkoo ak cër boobu ngir bëgg mu ñëw def rolam moo tax bi ñu taxawalee bërëb bi eh, waa waa courant ñëw def fi lépp waa ndox ñëw def fi lépp ñu ànd kook yooyu yëpp ba yàlla dogal it euh, sëriñ Mouhamadul Mountakha daal di taxawal euh, kuréel gu mag yi mu tuddee junna liman nasama ñu ngi ñaan ñu waa Touba ci kanam yëpp mu nekk suñu pakk noonu mu ko tuddee mu nekk suñu pakk bi dox suñu digganteeg sawara ci ñu ko organiser kon alhamdulillah di ñu sëñ sagalee sagalee Touba ci kanam ngir ñu bokk ci ñu organiser loolu nga xam ne ab pakk la ko sëriñ Touba tuddee ci ñu ko organiser ñu ko nos yàlla nañ ca bokk. Euh, tey nag ñu euh, wàllu scientifique et culturel daal di moom xam nañ ne fépp fu mbooloo daje rek ni ñu war a saytoo wàllu wér yaram saytu dund ba social teew feek ñi ko àndal noonu la ñu war a saytoo ba tey seen seenum njàng ak lu jëm ci seen wàllu xel moo taxoon tey ñu ñëw fi ànd ak sëñ Mourtada euh, Ndiogu mii nga xam ne mooy vice président scientifique et culturel ak sëriñ Adama Ndiaye mii nga xam ne membre bu mag la ci scientifique et culturel sëñ Abdou Khadir Mohamed Dam mi jiite sous commission bi taxaw loolu xam naa ne jokkoo gi moo tax fekk wuñ ko fekk fi sëñ Abdou Khafre Tagueye mii en tant que vice président Touba Ca Kanam waaye nag bokk ci ñi Touba Ca Kanam kanam délégué ca euh, kuréel gu réy gii nga xam ne mun Mountakha moo ko sampu sagalee Touba Ca Kanam ngir mu bokk si ña ko ña ko fay liggéeyal euh, ngir ñu mën a xool si léegi nag bu ñëwee li ñuy def rek mooy dañuy euh, sukkandiku ci données yi ñu yore ñoom ngir mën a xam gone yi nga xam ne nekk nañ fi ñaata lañ bu ñu ko xamee rek ñun automatiquement comme yàlla def na Touba Ca Kanam amoon na programme bu baax ci wàllum jàng comme jàngale euh, ni ñu ko xamee rek classe bu nekk ñun danañ xam ñaata gone yu nekk ñaata jàngalekat la ñuy soxla bu boobaa it bëgg nañ ay bis gu nekk it ñu jël benn borom xam bu mag mu ñëw delloo si nit ñi seen borom delloo si leen ci seen diine si leen ci seen aada. ànd ko it bu ñu suñ euh, ñi ñu bokkal kuréel gi ñoom suñ yuusu waa Hizbut Tarqiyyah xam naa du ñàkk ñoom it danañ jàppale léeg-léegi ñu fi ak kuréel goo xam ne danañ ñëw. Eh, daal dundalaat béréb bi ba nit ñi fi nekkoon noonu ko sëriñ bi waxee woon ca baytam wa eh, ansihim bi abaahum kulla xiini maanaam bu ñu ñëwee ci man maa ngi lay ñaan yow suñu borom nga leen di fàttaloo waxtu yi ñu nekk fi man nga leen di fàttaloo seen i baay te xam ngeen ne baay moom <laughs> liy coonaam lépp mooy li tax ak njabootam eh, tey tege jaar ci yoon waaye moom li mu ñaanoon suñu borom mooy ansihim bi waltu basir bi yal yataama maa ngi lay ñaan yow suñu borom ngay bégal jërim yi ci man bu ñu nekkee fi man ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy bëgg baayoo yeeg jërëm yi ñuy bekk wala tubasir bi yàlla yataama dawaaman loolu nag dana woon na sax maa ngi ñaan yow suñu borom mu nekk lu sax luy wey ba buñ nekkee fi man sax na nga na nga nañuy fàtte seen i waajur Touba Ca Kanam lool loolu rek lay dox dafa bëgg daal fii ku fi nekk moom doo fàttali ko naan koñ ba ma nekkoon daan naa jàng jànguma wala daan naa lekk lekkuma daan naa naan naanuma daan naa da yooyu yëpp daal lañ bëgg mu dakk loolu daal mooy kii li ci des nag incha allah ci ñoom suñ Mourtada Ndiogou borom xam-xam yi ànd danañ ci taxaw ba lépp luy tax loolu sotti yàlla def na sax suñu abib moom taxawaloon na jàkka ji béréb bu ñu mën a tàmbalee mi ngi fi waaye bu laajee yokkaat béréb bi Touba Ca Kanam dana ko ànd ñoom ñu yokkaat ko ba mbooloo mi fi nekk mën fee jàngi ñu ngi jéglu bu baax ci kàddu yi lépp nag suñu Abdou Fatah leeraloon na ko waaye xam naa rek di jéglu baax di jaajëfal waa communication ci ci ci taxawaay bi liggéey bi jërë ngeen jëf ay ca murid Touba Ca Kanam weer wi deen Serigne Touba liggéeyal ko warteef la ci ñëpp joxe ñaari téeméeri dërëm ci Touba Ca Kanam weer wu ne nag boole na jëf yu baax yëpp